بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن وسماه في آية فرقانا وجعله نورا مبينا والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم سلفا وخلفا إحلاسا وإيمانا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am mbégte lool yàlla may ñu ñu teew ci jotaay bu tedd bi jotaay bi nga xamle mooy téere borom bi subhanahu wa taala waaye di sant yàlla mi nga xam ne moonu maye ñu doxalee ko nii ndax ñépp xam nañ ne daaw nit xajoon fi jafe na lool dañuy sant buur bi subhanahu wa taala bu baax a baax di jaajëfal jëmm yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew ñoom ñëpp waaye ak bépp jëmm joo xamante ne yaa ngi nuy topp foo mën a nekk ci àdduna bi yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala nangul ñu ñun ñëpp thème bi nga xamante ne moom la Cheikh Mouhamed Ali Gueye Abou Taha war a waxtaane tey mu nekk message bu rëy ci message yi alquran al karim yi mu nekk loo xamante ne téere bi moom lay wuyoo mooy alquranu kitaabu hidaaya alquran téerek njub la téerek gindeeku la mu nekk loo xam ne moom la ñépp soxla mu nekk tem goo xamante ne àdduna gépp ko soxla jamono ji ñu toll waye mu nek tomb go xamantene rew mi daf ko soxla fi ñu tollu ñëpp xam na ne jaaduna lol te jotna nit ñëpp ci wat ci tere borom bi subhanahu wa taala delu ci wat ci njub gi nga xamantene mom mo nek ci alquran waye tomb goge ñu joxat ko nit ko xamantene ku tuddu kilifa alquran ci rew mi ñi nga xamne ñom ñoom ragne ku lol ci xam alquran waye man ko amub njàng lol ci alquran alkarim ci lépp lu botu ci ulum alquran waye lépp lu botu ci xam-xamu alqiraat doo leen tudd mukk te tuddoo nga xamantene mom Cheikh mohammed Ali Ali gay Abou Taha yàlla may ko taysiir bu bax ci ko wax fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman lutta yàlla na yàlla bur bi subhanahu wa taala meñu ñu bokk ca muttaqin yooyee ndax yàlla may na ko tey siir googee yàlla na ko bi subhanahu wa taala woyofal bu baax ba moom mu mën ñoo yegge tomb gu am solo gii tomb gu rëy gii nga xamante ne moom mooy njub gi nekk ci alquran al nga xam ne bari na ci ñun ñoo xamante ne bàyyee ko xel waaye yitte bi alquran jox alhidaya yitte bi nga xamante ne moom la alquranul karim jox njub ba nga xam ne saa yoo jàngee fatihatal di nga gis nako alquranul karim ta'abire mu pare ci nga tek ca surat al baqara di nga xol fan la alquranul al karim tek li nga xamanteni ne modi ñuk tay ji ñun ñoñ alquran de dañoo daje dadi di feddalil suñu soppe suñu ciofel ci mom muy alquranul al karim ñun de sans alquran ñun mënuñoo dund yaakaar naa mom lañu ñu bind fee bind nañ alquranu gaayatuna القران قدوتنا واي القران حياتنا واخ جوجي ني بري سي ندونغي دنج كوي ديسا القران دوندو بغير القران فكلنا موتى اي موت الجهل القران حياه من موت الجهل مانام القران دوندو لا سوي دوندو القران يعني دوندو موچوغا سي ديوك رير باسكو يالا دينا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان يلا داري كوي جيل ديف كو موي لير باسكو القران الكريم سو خاسي با نيو رك نيت كي دافاي كوماسي دوندو او من كان ميتا فاحييناه ميتا ايه موت الجهل دانيو نيكون دي رير نيك تي رير با يلا بور بي سبحانه وتعالى دا نوي غيندي ليغا خامتيني موم موي تيري بي تي مبيكتي بيغا خامتيني موم لا نوي دوندو موم موي القران الكريم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم ab waarookaay ñëw na jóge ci seen borom moom mooy lan alquranul karim wa shifaun li maa fiye li maa fi sudur jamono ji ñu toll nga xam ne feebar yi dënn yi bari na lool feebar yi dënn yi alquran rek a koy faj am na feebar yoo xam ne soo demee ca médecin ba mu tegal la ay matériel am du ko gis soxor matériel u médecin bi du ko gis añaan du ko gis mbon gi ci xol du ko gis alfajau wal xusnu du ko gis waaye yooyee xeeti feebar yépp alquran al karim moom moo koy faj kon suñu deglo ki nga xamne mom moy Cheikh mohammed Ali gey ahli alquran gep fi ci tiana batay waye ak ci réew meeg bitim rew ñom ñep ñu ngi koy déglu yaakarna dañu jël message bo xamantene tay ji fi rew mi tollu ak ni mu jaxasoowee képp ku ko déglu insha allah taala di nga jëriñu lol te di nga xam fan ngay tek sa tànk te yoyé febar yi nek ci deun insha allah taala di so pare rek di nga gis ne febar yoyé wërna ci yow kon akrim bi qawmin akramul qur'ana وهبوا له الأرواح والأبدان بارك الله فيكم شيخ محمد علي جي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله mbokk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوجي سنت سنو برام سبحانه وتعالى دنيانا سنة بتل بسيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلنك يلنم يخيو الأدمج نوكي نيانا الأنجبوتم أك أي أندندوم أك كبكو جارتي خلوين في بح بكر ابن يتحوج سنو كنم برام ببسبا يلنفك يلنجرم سنو كاتب دي ci walu gogu man naa koo jëmmale rek la kenn ci way waykati diine ji waxon ñukoy wax abul itahiya ilahi la tu'adhibni fa inni muqirrun ladhi qad kana minni وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من ذلة لي في في الخطايا وعفوك ذو من وفضل يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعف عني نيت ني اك مباخ لا نياكار تي نون تا لي نو خام تي سونو بوب خام نان ني غاتان ني نون باخ سونو ديغك سونو بروم تا مو ني سوترال يالا نون يالا جيغل تومب بيغا خام ني موم لا نيو tànnoon tey pour sunu jotaay bi ni ngeen ko xamee al Oustaz Alioune Sall sunu baay la bëggoon mu taxawee ko xew-xewu jamono tax jotaay bi bindoo nii nu ñëw pour wuutu ko ci nit nag bu bëggee wuutu baayam te baayam ni jon rawatina ju mel ni Oustaz Alioune sàll ci tomb bu mel nii ak cuune mën naa feeñ waaye noo ngi dëgërloo sunu borom subhanahu wa taala wax ci alquran ak sunna dafa yomb léeg nga dégg ku ñuy coow ay waxam diw daa am fasaaxa diw daa mën a wax fekk boo xoolee wax ji yépp texte yim cay dugal ci biir alquran di tudd baat ya di ko ca baril di tuddi baat yi génn ci làmmañul yonent bi sallallahu alayhi wa di ko baril moo jox barke ay waxam yooyu yii bu ko ca génne woon rek ay waxam mel ni waxi ñëpp kon dañuy dimbale ko sunu borom subhanahu wa taala ba jéem a wax loo xam ni lépp daañu ko jéem a teg ci yàlla neen yonent bi ne na sallallahu alayhi wa sallam alquranu kitabu hidaaya loolu de borom bee ko njëkk a wax mbind mi ma jàkkaar lool ci sama kanam dañoo desee na ab téere jubli ci alquran bind ci haada huda لولي يالله كو وخشي سوت الجاثية هذا تيري بيد القرآن نيني آ موني هدن أك نجبلا لولو كون بودون سونو وخي جامونو دنا نيك في دي وخات ني القرآن تيري نجبلا وخ جو يقلا واي نك بروم بي تي بير تيري نجب غوغي مو ني سانت ني فاتلنت نجب غي وذكر إن فعت الذكرى bu ñu bëggee jàngat tom boobu yi alquranul karim fatiha ba naa si lépp téer ak yàgg naa nettali loo xam ne sunu baay taala siise yàlla na ko yàlla yokk wér da ko daan nettali lu bari maam borom tuuba rahmatullah alayhi daa masa woo lenn ci njabootam ni leen tari leen alquran ma dégg ñu tàmbalee fatiha jeexal ko تنبل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ملن تخولين القرآن يب ميغي تنكو تي باتو هدى لجلس لب دخوي ليرالس إفكتفما القرآن الكريم فاتحة بناس لب هدى فاتحة جوجينغ خمنتني مملي على تجي القرآن الكريم نيان جيتي نيكروت sunu borom subhanahu wa taala sanu ko nun en tant que ay julit nga xamni julit bi lumu saggan sàggan sàggan warna gor gor lu ba jàng ñaan gi fukki yon ak juróom-ñaar ci bis bi moy ihdina siraat al mustaqim al hidayah yàlla ñu ni ha ganna bang ko tagge bakku ko feddali kóllëre gi dox ci sa ak yow moy nga jaamu ko dess di jaam mu di bur iyyaka na'budu wa iyyaka nastain yonent bi nee na bu jàmm bi tollee foofu te dëggal kóllëre gi borom bi danaan wali abdi ma sa lum ma ñaan ma may ko yàlla ni njëkk la ñaan jub ihdina siraat al mustaqim kon bu ñu duggee ci alquran ma ni ñaan gi yàlla njëkk sa jullit bi farataal ko ci ay julleem mu di ko jàng bis bu nekk ab lim ñaan googi du àdduna du alal ju bari du njaboot gu bari du ay soxna du yeneen ak yeneen waaye ak njub la ko ñaanloo ndax moo gën ci moom àdduna moo gën ci moom àllaaxira damay faral di wax ne bu ñu toogoon cib jotaay ñu toog ba si yàgg ay takk der dugg si ka di ca jotaay ba boo moytul dina rocceeku balaa gaayee wax lu ñu fi wut si ndax xam nañ daa jubadi am na lu mu def donte doon na ko nëbb waaye njot na ni gaa yi yëg nañ ko ba moom la jël si jubadee ko tax mu kii waaye ña jub moom dañuy taxaw teeru leen nuyu leen xool seen soxla doxal leen ko kon fii ci àdduna ma ne ak njub moo fiy noppale waaye ëllëg yomal xam tamit noonu bi borom bi subhanahu wa taala sayee ñaan gu réy googii farataal ci sunuy làmmeñ ñu di ko répété lu bari ci alquran mu tette ñu nag saa buñ ne borom bi ihdina siraat almustaqim noo lay ñaan hidaaya ñu jeexal saar wi rek suratul baqara ne tëll borom bi wax ñu ci saar woowu ci laay yu njëkk yi ni njub gi ngeen ma doon ñaan ci suratul fatiha mi ngi nii ci téere bi dalika alkitaabu ñu naa mu ne laa rayba fiihi hudan njub gi ngeen doon ñaan tontul borom bi ci njub gi ñu ko doon ñaan mooy téere baa ngi nii lépp njub ci la nekk moo tax borom bi subhanahu wa di wax ci alquran nga dégg muy firndeel ni téere bii téere bu njub la lu mel ni laay jooju ma jàng sànk ci suratul fatiha dalika alkitab ci suratul baqara dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqin kon alquran di téere boo xam ni day gindi nit ñi teg leen ci yoon wu jub te leer te set waaye ginnaaw ba mu lañ ca tegee ba pare dëgëral tegin wa téye leen ci bu baax te dina feeñ ci biir wax ji borom bi ne na qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin dikke na leen jóge ci seen boroom ak leer di téere bu bu firim fànc lépp bu bir lu fi indi téere boobu yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salaam borom bi da ciy gindee di ci tege ciw yoon kiy mën ngërmënay borom bi subhanahu wa taala ndax du tarxis fii ci àdduna ëllëg yawmal qiyaamati yi du gis lu ko fa jaaxal mbokk jullit yi bu ñu duggee ci alquranul karim jàngat ya dañuy gis ne alquran joxoñ nañu ñeenti xeeti njub yoo xam ni ñeent yu ànd la ci toftale waaye benn nit mënu cee dem bàyyi sa moroom ñeent yu ànd ci toftale li ma ci jublu mooy fàww nit ki njëkke bi may njëkk a tudd teg ci bi cay tegu continuer benn mënu ca de bàyyi sa morom mooy fii nit ki àggagul ca gu ñeenteel ga njubug alquran matagul ci moom xeetu njub yooyu ci alquran ga ca njëkk mooy hidayatul fitra hidaaya gi nga xamante ni borom bi moo ko mooñaaleeg nit borom xam ne dañuy wax ni gone gii doo ko jàng wax sax boo ne ko ana yàlla mu téen ci kaw يلا كو بندالك مم خمو قول سخ لمي برم بدنا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها ينتم صلى الله عليه وسلم دي وخنا كل مولود يولد على الفطرة ولو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كو غني أدنى رك مبندرم يالله مسد ويتنغ إندالي moo tax wolof di ko tudde leer da daan imaala baat bi dañ koo yàq bay wax liir waaye kii doog a ñëw moom set wecc la def ci diggante ak borom subhanahu wa noonu la ko yàlla bindee waaye hidayatul fitra ba tey day dugg ci borom bi subhanahu wa jox mbindeef yépp a ko bokk xeetu hidaaya googu kenn ku nekk ci mbindeef yi borom bi jox la ci gindi loo xamante ni dina tax nga mën càss ko di ko pour dund sa dund ca nu mu tudd yamb ci suratu naxli nga dégg borom bi naan waa waxaa rabbuka ila naxli an ittaxidi min aljibali buyutan wa min alshajari wa mima yacrishun ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا هداية الفطرة googi la borom bi doon junj kenn ku nekk ci mbindeef yàlla yi nit ak jinne malaak rab borom bi defal na la hidaaya goo xam da ciy ñoŋale sa dund nga dégg mu ni bu yamb day maa ko wax yu maa ko orienté ca la muy lekk maa ko orienté ni ko bul utati gàpp ci la ngay lekk fu la neex demal summa kuli min kulli samaraat lekkal lépp yamb lépp lay lekk moo tax it li muy génne ci biiram lépp lay faj borom bi ne ne li tax ma jox ko orientation bi lekkal lépp li tax ma digal ko ni ko demal fu la neex bul xalaate riir boo weññeeku maa lay orienté ba nga agsiwaat fasluki subula rabbiki laa لما تجيب ما يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان هو فيه شفاء للناس لولينغا خامتاني بو يام بو генني ديم فام ورا ديم وور فام وور وور ليك لام ورا ليك مانا ديلو سي وات خيتو غينديكو غوغي يال ديفال كو يامبا ديفال كوم خار با دو ليك لوكاي ري ديفال كو كانينا كينين ديفال كو نيت تا نيم كوكو ديفال موي مو فخه مو خامي لو باخ اك لو بون جوخ كوم خيل لول لي ني تودي هدايتو الفطره borom bi diko firndel ci nit nga deg mu nan alam najal lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn nit day joxna ko jumtu kay xàmmee bokku na ci ay beut am xel mu cey xalaat lutax ma jox ko xeetu kay yoyu moy hadaynahu najdayn tegal nako ñaari yoon yi mu xam yoon bu baax xam yoon bu bon waratan nak ban la ci sóobu inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafuran xeetu hidaaya googi mooy hidayatul fitra loolu mbindeef yépp a ko bokk ñaareelu hidaaya gi mooy hidayatul irshad njub gi nga xamante ni orientation la loolu mooy xeetu njub gi yonent yi indi alayhimu salaatu wassalaam xeetu njub googi di hidayatul irshad ñaar a ko bokk di athaqalayni al ins wal jin nit ak jinne yeneen xeetu mbindeef yi génn nañ ñoom ñaar ñooñu ñoo tax yàlla yónni yonent yi ñu ñëw naan leen def leen lii bàyyi leen lii ñoom ñaar ñooñu lu tax yàlla jagleel leen xeetu mbindeef yoo xeetu ngit hidaaya googu mooy da leen a jox xurriyatul ixtiyaar ñu am choix tànn bu ñu tànnee yoon wu baax wi imma shakiran bu ñu demee jël payga bu ñu tànnee yoon wu safaan wi wa imma kafuuran bu ñu demee dund conséquence ya kon xeetu orientation boobu la fi yonent yi doon indi ba tax nga dégg yàlla naan yonent bi lasta alayhim bi musaytir yow daal li nga man mooy leeral njub gi orienté leen ci ba mu leer nañ waaye wommat leen dugal leen ca forcé leen ca nag saxal leen ca yow mënoo ko ndax lan xeetu njub googi la ñuy tudde hidayatu al irshad nga dégg yàlla di wax ci alquran nan ya maachara al jinni wal ins in istataatum an يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يني تجن خنا سما يندا ونيو نيوين أريانت سلين جنجل لين لاي وخل لين تيجيني جفي بور جوب أجي يجيني مايتو لجيني مايتو كتريا بور بني جوب وينذرونكم لقاء يومكم هذا موي بنيان جنجل نياري يني وبره وخل لين لاي خار kajaar te yoonu njub ak conséquence ya nga xamante ni kajaar da waroon na koo dund loolu lépp xanaa amul ah kay amoon na kon loolu yonent yi doon def loolu lañ tuddee hidayatu al irshad nga dégg alquran di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeetu hidaaya googi wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يالا نين من مالا جوخ القران لما تي جوبلو موي غو اورينتا سي سما جام يي تيك لين سي يون وي خيتو اورينتاسيون باغا لين ديفال سي باتو وانك لتهدي مو هدايه الارشاد ليرال لين كو بام لير ناج باكو جار سي يونو باخ وي داكو لير مو تان كو كو جان تي يور مو سفارو وي داكو تاي مو جار فا لولي لا يونتي دون ديف تا واتيو نانيو اك نيون خيتو هدايه غوغي مو هدايه الارشاد gis ngeen ni hidayatul daa topp ci li ñuy tudde hidayatul fitra ba ñëpp bokk ñaar ñooñu di asaqalee ni génn wéetuwaat gii gu ñetteel gii nag nga xamante ni nit a ginne ko bokk gu ñaareel gi kon gu ñetteel gi ña yàlla tànn ca ñoom defal leen tawfiq ñoo koy am mooy hidayatu tawfiq hidayatu at tawfiq loolu ki tànn yoonu njub ba pare la yàlla di fekk ca yoon wa nag defal ko hidaaya gën ko cee dëgëral defal ko hidaaya ak dara du ko ca yëngal defal ca hidaaya defal ko hidaaya ak du ca yonjax defal ca hidaaya defal ko hidaaya ak du ca gestu mukk loolu la ñu tuddee hidaayatu tawfiq loolu tawfiqu borom bi la subhanahu wa taala cib jaamam te keneen ku dul yàlla mënu koo defal ab jaamam waaye jaam bi mu koy defal nag mooy ki nangu hidaayatul irshad cib yonentam bay ñett ñetti pour jaar ca borom bi defal la li nga mënul إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أستاذ أحمد دام جاade koy firi yàlla du defal kenn lim man ba mu la joxee xel ak xalaat yónnib yonent mu leeralal la yoon wu baax ak wu bon dalaa bàyyi ba nga tànnee yoon wu baax wa nag fala la fekk nag defal la hidaayatu ak tawfiq kon ñetteelu hidaaya gi mooy hidaayatu tawfiq borom bi mi ngi koy defal ñi tànn yoonu njub bëgg cee jaar nga dégg borom bi naan innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha innaka yow yonent bi laa tahdi man ahbabta du ku la neex mu gindee ko doo gindi ku la neex kon noonu la ñuy boole ñaar ay yi ji ma jàng sànq ca hidaaya gee dégg nga ko mu naan wa innaka la tahdi dangay ngay gindee fii mu ne ko innaka laa tahdi doo gindee amul ak wuute da ngay gindee gële mooy hidayatul irshad doo gindee gii mooy hidaayatu tawfiq ñi xas ba ñëw nag dëgëral leen dimbali leen ba duñu yoñ njax duñu am lu leen gàllankoor kooku moom man maa ko man sa liggéey jeex na ci ñoom loolu mooy hidaayatu at tawfiq borom bi ni wa innaka innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaau wa huwa aalamu bil muhtadin ñi ñëw wuy si la ñépp ñëw nañu am na lu borom bi xam ci biir loo xamul yow muy biir xol yi moo tax foofu lay sukkandiku nag di def xeetu hidaaya gii di dëgëral ña nga xamante nii seen xol dëggu na ci ñoom ndax borom bi dara nëbbu ko yaalamu sirra wa axfa sunu mag al ustaas xaadim Njaay day wax ni booy jàng al qisasul quraan yi da yëg ni xeetu nettali yii moom yàlla kese ku mën a nettali ndax kenn ku nekk bu fekkee jotaay la ca jotaay ba lam mu gis ca kaw lay mën a nettali mais borom bi moom da doon netali jotaay yi di netali waale ci biir xol yi waa jotaay bi nga dégg mu naan fa awjasa fi nafsihi xiifata Muusa kan ma mënoon a xam loolu ci jotaay bi ku dul rabbul izzati wal jabarut loolu ump ko moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa bu gaa yi ñëwee ba pare nag defal nga leen hidayatul irshad ñëw nañ wuyu si bi ñu agsee nag dinaa gam-gam le wuyu si giñ la wuyu si ci kaw ak na mu leen ko sante ci sen biir ñe ca dëggu nak ma fekkat len fa defal len hidayatu tawfiq motax nga deg ma yonte bi laysa alayka hudahum laysa alayka hudahum walakin allah yahdi man yasha alquran di firndel xetu hidaaya gogu ci laya jàngal ladina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ladina ihtadaw kon am nañ hidayatu al irshad ba pare zaadahum hudan mooy kon dama leen defal hidayatu tawfiq واتاهم تقواهم برام دا ما جخ لين سينو گم اك سينو راغال يالا مو دغر كج تي لين نيك خول الفتيه الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا هدايه الارشاد غي نونو بربهم وزدناهم هدى هدايه التوفيق غوك غديك گيس كون ني برام بي نيمي التوفيق موي ني نانغو با غور غور لو تي سلال برام سبحانه وتعالى فك لين توفيق لين ba ñu am hidaayatu tawfiq hidaayatu tawfiq woogu na ku ko am mooy mën a am hidaaya ak ñetteel gi gi alquran junj ñeenteel gi kon mooy hidaayatun ilal janna ëllëg yowmal qiyaamati jullit ñi dëggu seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala bu ñu dekkee du ñu laajte seen kër aljana loolu hidaaya la geneen hidaaya la ko xam nit ñi dañ koy soxla ndax am na ñoo xam ne bu ñu dekkee dañuy gëlëm yàlla bu ñu ko yàlla am na ñoo xam ne bu ñu dekkee dañuy gumba du xam fu ñu jëm nga dégg alquran naan gaa yi bu ñuy doog a dekk dañuy mel ne ay lëppalëp yu tas kal farashil mabthuus ay lëppalëp boo leen tasee bu nekk fenn la jëm nit ñi dañuy gëlëm dañuy mel ni ñu naax dañuy mel ni seenum xel nekkatu fa ku ne daw ut foo jëm li leen di jëmale ci benn destination mooy wooteeg borom bi subhanahu wa taala muhtaina ila daa borom bi nee na jamono ju ma leen woowee nag bañ dog bañ war maa wuy si ci la ñoom ñëpp di amee benn destination comme ay njéeréel ka annahum jaraadum muntashir jamono jooju képp koo xamante ni amoon nga hidaayatu tawfiq fii ci àdduna boo dekkee doo gëlëm doo réer doo laajte sa kër aljana dangay mel ni da nga faama sa dëkk ñun ñi ñëw ñëpp kenn ku nekk booy waññeeku yaay doxaat sa saw tànk wala taalaat sa oto ba àggaat fa nga dëkk gaare sa oto ci sa bundu kër dugg doo laajte sa kër doo laajte sa néeg doo laajte ya nga fa soxla ya nga fa bàyyi woon ëllëg yowmal qiyaamati ñi amoon hidaayatu tawfiq fii ci àdduna lu mel noonu la ñuy am ci àllaaxira mooy borom bi subhaana taala dafa leen hidayatun ila janna ba bu ñu dekkee rek duñu ñu laajte du gëlëm dañuy dox dox bu jekk wuti seen kër aljana nga dégg alquran naan walladina qutilu fi sabilillahi falan yudilla amalahum sayahdihim wa yuslihu balahum borom bi ne ne ñi nga xam ne dañ leen a faat ci yoonu yàlla dañoo joxe seen bakkante yàlla tax nek ci kër kër ci toolu jihad yi ak bu mën doon neena bu ëllëgee yamal qiyamati nga xamne dëggu nañ ci seen borom seen borom dëgg dina dëggu ci lim leen dik moy ëllëg yamal qiyamati bu ñu dekkee borom bi neena dama leen defal hidayah go xamanteni dañuy melni fa ñëw dañ fa dëkkoon ay ati at al imam jamashari rahimahullah bi mi firi laay joju dafa netali waxi serign bu ñu tudde mujahid neena al mujahid neena yahtadi ahlul jannati ila masakinihim minha laa yuxti'uuna ka annahum kaanu sukkaanuha mundu xuliqu laa yastadilluuna alayha nee nañ waa aljana ëllëg bu ñu dekkee dañuy xàmmee seeni kër dañuy gindeeku ca kër ya du ñu laajte du ñu tatone nee na daa mel ni dañ caa dëkkoon bu njëkk mbokk yi ñeenti xeetu hidaay yi ma tudd muy gi mbindeef yépp bokk di hidaayatul fitra ak gi nga xam ne nit ak jinne ñoko mom di hidayatul irshad te yonent yi di len ko defal ak borom xam-xam yi ak gi nga xam ni ñi degg bi ñu wuyusee ba pare seen diggante ak seen borom ñoko mom di hidayatu at tawfiq ak ñentel bi nga xam ni moy hidayatu ilal janna ñoo ñu dëggu woon la ko yàlla defal ëllëg yawmal qiyamati ñent xeetu hidaay yoy yépp ci niñ cyallalé wa nonu nit mënu ko amee fenn fudul ci alquranul karim lolo tax ñu ne alquranu kitabu hidayah nga dégg borom subhanahu wa taala di melal alquran ci barab yu bari ci ak njub fa in lam yastajibu lak yonent bi yaangi ngi yaangi def hidayatu al irshad waaye bu ñu ñëwuñu tan wonen yoon wu bokk la gu njub bi faalam annama yattabiuna ahwaahum yëgal ni seen banex lañ top rek ومن أضل ممن mimman هواه بغير هدى من الله min allah borom bi سانكو ne kenn رير ki topp ay bànneexam bàyyi fi njubug yàlla gi bi gayri hudan min allah njubug yàlla googi moo di alquran foofu yàlla dafa mereel alquran ak njub dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin jàngoon naa ko sànq alimaamu saadi rahimahullah bi mu firi laaye jooji ci suratul baqara laaye ñaareel nee na yàlla waxul ni ak njub la ngir intérêt sàngam nee na waaye dani ak njub la pour intérêt yépp moo tax day gindi nit ki teg ko ci yoon ci xeeti masala yu rëy yi ci diine ak yu ndaw yi leeral ko dëgg ci neen waaye leeralal ko la wér ak la wérul tegal ko yoon yi nga xamante ni yëpp bu ca jaaree am ngërëmal borom subhanahu wa taala loolu alquran moo koy def alquran mooy tegal nit ki yoon yi nga xamante ni bu ca jaaree dem aljana leeralal ko ab lay dëgg ca safaan leeralal ko la wér ca la wéradi لول نيت كمنو كامي فن فدول تال القرآن مدخ من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يلا ديكم ملا لوات بتا دي نتلي تلام نيو جيني كرك بي نيوي ديغلو يلانتي صلى الله عليه واله وسلم مو القران با بري با نيو ديلو دي واخ سيني غاي القران كو نتلي تي اي بارب بوكو تي سوره الاحقاف قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. جاي dégg nañ kat wax joo xam ni ñu ngi koy jàng ginnaaw yonent yàlla Moussa la fi ñëw waaye li muy wax lépp day dëggal si la Moussa indi woon ndax yonent yi ñoo bokk benn message mooy jaamu leen yàlla te bañ ko bokkaleeg dara musaddiqan lima bayna yadayhi luy mission téere boobu wax jooju ngeen dégg mun yahdi ila alxaqi day tege ci njub kon alquranu kitaabu hidaaya ci suuratul jinni muy nettaliwaat ci jinne yi qul uxiya ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا yàlla nee na yonent bi day nettali saxaaba yi ni leen yàlla kat déy na ma ni junne yi doon nañ ma déglu ci sama njàngum fajar gi jullig suba gi junne yaa ngi ma doon déglu bañ paree lañ wax mu ne inna sami'na qur'anan ajaban dégg nañ alquran ju yéeme li ko fi indi moom alquran bi mooy yahdi ila rushdi day tege ci njub day gindee moo tax ñun ñi ko dégg moom fa amanna bihi fa saasa dañ koo gëm ولن نشرك بربنا احدا ahadan نيوم بن كو ديغي ريك لا القران دي ديف سي نيوم لي ñoom li muy def mooy jubal leen moo tax mu ni yahdi ila rushdi fa nga déggaat ci même saar yi borom bi dox ni wa amna lamma sami'na alhuda amanna bihi gis ngeen foofu waxul lamma sami'na alquran waaye baatu alhuda la jëfandikoo ci alquran bi ñu déggee njub gi lan mooy njub gi mooy alquranul karim borom bi di waxaat ba tey ci suratu المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام بات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل, سبل السلام الإمام ابن كثير رحمه الله بمكي فري دن أي طرق النجاة والسلام ومناهج الاستقامة بو يالا ني damay gindi ci القران teg teg ci nit ñi ci yoonu jub bi mooy da leen teg ci yoonu mucc ci yoonu njub ak yoon yi nga xamante ni ku borom bi subhanahu wa taala ba tey di melal alquran ci njub nga dégg mu naan wala qad jinahum bi kitaabin fassalnahu ala ilm indil naa leen téere boo dama koo firim fanché leeral ko ba mu leer naññ te lépp ci xam-xam laa ko teg lépp ci xam-xam laa ko teg alquran lu wuuteeg moom ci wàllu science rek loola moo dul lu Oustaz Alioune day faral di wax ni képp ku jëloon big rouge ni dafay corriger alquran nee na buy liir laaya jum jaar rek awéy rek la ciy teg awéy laaya jum jàng ba daan rek daal di coché awéy ndax lépp daa leer wàll goo ko xoole waaye lépp daa xam-xame ci wàll goo ko xoole kenn ci ay kilifa ci réew mi mas naa nettali ci benn ci sunuy télé lu daw yaram benn gëstukat bu doon gëstu bi mu gëstoo moom gëstoom eh, alimaam mi ngi ko doon def ci xaw mu aad xawmu aad aw nit la woon wu fi jaaroon woo xam ne yàlla nettali nañu suñ seen histoire nettali ñu yonent ba mu yónni woon ca ñoom la ñu fa mu jaar ak ñoom moom mu def gëstoom ci ñooña ñooña ñooy ñan fu ñu dëkkoon lu nekkoon seen i mbir wóoy fi alquran dem di gëstu ji def recherche ba sonn indaale zéro maanaam bi mu gëstoo ba jeexal gisul dara moom daal bi mu ñëwee li mu joxe comme synthèse mooy xawmu aad du xeet wu mas a existé amul alxuraan da ko tudd rek waaye amul gaa yi ne ko lu tax firndeele li nga wax mu ne li tax ma ne amut mooy xeetu gëstu gu nit di def te technologie àgg fa pour génne jeexintal ci ñu fi mas a jaar jaar naa fa waaye gis gisuma benn jeexintal ci ñoom moo tax ma jàpp ne alxuraan da leen a tudd te amut gaa yi ni ko boo leen gisoon wala nga gis dara ci ñoom la la ñu alxuraan di jaaxal ndax alxuraan daa waxoon ni ginaaw bu leen yàlla mbugalee fa hal tara lahum min baqiya wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ نحن أب رشر سر من نانيو رشر سبا جس دس ولا جيخ انتل منتنك mënta nekk kon alquran a ngi noonu téere la boo xamante ku ko topp day jub te léppam daa xam-xame wala qad jinahum bi kitabin fassalnaahu ala ilm hudan wa rahma la ci teg alquran di waxaat ci suratul baqara chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda furqan shahru ramadan bi nga xamante ni ci laa wàcce alquran alquran joo jii ma ci wàcce hudan linnaasi ak njub la ci nit ñi wa bayinatin min alhuda njub gim len indil ci biir alquran la koy leralat ci xam-xam ba lépp tas ni tasar ba lépp leer nañ motax damay faral di wax ni lépp lo xamanteni da leer manam dafa yenu ndigal wala tere ci alquran Oustaz Cheikh Omar borom subhanahu wa taala leral nako yonent bi leral nako bam leer nañ du dugg ci li wax al ayatul mutashabihat borom bi neena fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa uxaru mutashabihat yi nga xamante nag tëggul ndigal ki tere daanaka dafa ñëwoon pour ijaaz lu mel ne alxuruful muqataa ak yooyu yonent bi yem ceeg saxaaba yi allahu aalamu kon léppi alquran ca ndigal yaak tere ya tënk njubug àdduna ak àllaaxira ci xeetam yi mu wax yépp yooyu ñu ngi koy amee ci alquran te leeral na ko ba mu leer naññi moo tax nga dégg alquran ci suutul fusilat di wax ni qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa القران اك نجبل اكم باج نيل نيكو گم تا دگو سن ديغنتك سن بروم الامام القرطبي رحمه الله بمن في الله جوي دني اعلم ان القران هدى وشفاء لكل من امن به من الشك والريب والاوجاع القران داي فاج نيت كوكو گم تي سيك ديغنتي مك بروم سبحانه وتعالى ام جيخي جاخا تي دينم جي تكسي واي اك لپ لوكاي ميت تي يرامم alquran daa ñëw pour faj si ko nan la koy fajee mooy mu tegu ci hidaaya gi nga xamante ni moom la indi mu tax laay ji may jeexale mooy ji ma tàmbalee woon borom bi daa wax ci suratul jaathiya haada huda haada téere bii di alquran hudan mooy ak njub haada téere bii di alquran hudan mooy ak njub njubuk adduna mi ngi ci téere bi njubuk alaxira mi ci téere bi njubuk xam li nga soxla hidayatul fitra mi ngi ci biir njubuk top yoon wi mi ngi ci biir njubuk dëggu ci hidayatul tawfiq mi ngi ci biir résultat njub yoy di njubuk ëllëg yamal qiyamati kenn du la sa kër ci aljana mi ngi ci alquran hada hudan waaye walladina kafaru bi ayati rabbihim lahum adhabun min rijzin alim mbokk yi loolu mo aju won ci tomb bi li aju ci kaddu daara ji moy no ngi sant ñep di gërëm ñep tay ñaanal borom subhanahu wa taala fay ñep yàlla ñu borom subhaanahu wa taala defal tawfiq ak taysiir noo ngi jégalu ci kàddu yu guddi yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.